assainissement bi indi nañ ci ay coppite ndax xam nga configuration wu euh, Diamniadio dafa nekk une configuration particulière donc président de la république ci affaire assainissement bi euh, ak DGPU presque plus de 100 milliards dugal nañ ko ci pour assainissement wu site bi mais également ñun fi ñu placé wu ci ci situ Diamniadio bi ci euh, def fi PTN bi dafa am benn voie d'eau bu fi rombon boo xam ni suñ ko suñ jël woon matakaay yi ci war mën na impacter négativement ci projet bi ndax kon su nawet jotee projet bi du dem ndax ndox bi fii yëpp mais def nañ effort donc def ay réajustement ci budget bi pour mën a am euh, un peu de moyens, defar ñun suñu canalisation bopp defe naa ne loolu avancé na bu baax a baax sécuriser na projet bi stabiliser ko mais également ñu ngi travailler pour am un système d'assainissement assainissement mooy euh, ñaari station d'épuration yoo xam ni ñun fii parc bi da koy am mu da xam day autonome mais également loolu lépp day dugg nak ci plan d'aménagement global donc bu Diamniadio boo xam ne dinañ ci branché wu aussi ñun tamit té loolu defe nan gouvernement ben ki def ay jéego yu am solo.